waaw jërëjëf soxna si bés bi moom taarix gi mooy li ma fàttali léegi bi ñu nekkee ci biir ndigal la loo xam ne sëriñ Saalihu yàlla na yàlla yokk leeram moo ko doon sant sëriñ Muntaxa mu di ko taxawee ci foofee la jaare woon sax ne nañ ko def bésub Ndakaaru yàlla dogal nag ñuy dem ba sëriñ Muntaxa di yeesal ndigal li jaarale ko suñu jëwriñ muy soxna Sooda Kumba muy bés boo xam ne dara taxu koo jóg lu dul toppi jeexitali sëriñ bi jeexitali sëriñ bi nag ak njàngat da ciy am ndax li ñu gën a def takk ci loolee mooy lii nga xam ne moom la ñuy màggal muy julli gi sëriñ bi julli ci géej gi ñun ñëpp xam nañ ne ba mu koy def wàkkiirlu suñu borom dong taxoon mu def ko ak gëm-gëm gëmoon suñu borom ak wóolu ko loole nag bokk na ci li nga xam ne moom la ñu bëgg jàngalaat réew mi jàngal ko sunu bopp ngir ñu feddali suñu àlluwa waaye tout temps ki topp suñu ginnaaw it jaare ci ne àddina moom dara nekk lu lu gëm yàlla te lor du jóge fenn fu dul ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala jeexital yooyee nag moo tax sëriñ bi yeesalaat ko ngir waxtu woo xamee ne yegsi na lépp loo xam ne ab jullit la ci ndakaaru ñu boole kook rawatina mur yi nga xam ne ñoo fi sosoo euh, ak fépp foo xam ne jóge nañ fa ci réew mi ñu bokk màggal ko ci njàngum alxuraan njàngum xasida ay salaatu ak i bernde sëriñ bi yabal jëmm joo xam dana jóge tubaa ngir taxawee julli gi bu ko taxawee ñu ànd ak moom julli ko bu nu noppee ñaanalaat réew mi ñaan suñu borom may ñu waat ko déwén waaye loolee moom mooy li nga xam ne mooy sabab bi delloo suñu borom njukkal jeexitali sëriñ ñu àndaat ci moo tax ren jii sax at mu ne dafa am xët woo xam des koy ubbi ci la ñuy jàng ren jii nag suñu borom dafa dogal ñu ne jeexitali sëriñ bi la ñuy xool téeméeri at bi mu fi jógee ñëpp xam nañ ni jamono yi weesu ci la ñuy def màggal ak daaru xudóos gi bi ñu koy def dañ ne woon ci at mi sëriñ bi am na téeméeri at bi mu ñibbee kon ñun ñii jaadu na tey yàlla na ñu seetaat téeméeri at yooyee lees si jëf lees si jëful ba jeexital yeeg yëpp ñu mën koo xoolaat mooy xët mi nga xam ne ubbi nañ ko ci ci ci bésu ci ñaari bés yooyee ñu yàlla bu baax nag ndax mel na ni wax naa ko gouverneur bi ñuy pare nee naa ko ñi ñu fi teewal ñëpp noo ngi leen di jotale santuk sëriñ bi ndax ak càllale la waaye lii nu fi dégg dal na xel te jot na nan ko daan defee daaw lu ko lu fooq seen ak jot dana ko def goog ren dana gàcceel goog daaw bu soobee sëriñ Touba. Assane Gueye laa tudd nekk adjoint gouverneur Dakar di leen remercier également si seen donc pour médiatiser suñu réunion bi donc tey nag euh, dañ tase woon gouvernance donc pour euh, CRD bi nga xamante ne chaque année depuis 30 ans moom la ñuy consacré Euh, julli julli gi nga xamante ne sëñ Touba julli woon na ko si géej donc mu doon événement bu mag ñu koy célébrer mu doon ndamul jullit yi du doon ndamal Sénégal mais particulièrement doon ndamal dakaar parce que yàlla moo def fu lañ koy célébrer donc nag mu doon événement boo xamante ne chaque année day màgg et day demander ay mesures yoo xamante ne comité d'organisation kase duñ ko àttan parce que day demander loo xamante ne état kase moom moo si mën a dugal lu jëm si wàllu santé donc jëm si wàllu sécurité jëm si wàllu ndox jëm su wàllu bépp appui ak les sapeurs pompiers donc parce que parce que il faut ñu sécuriser ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw pèlerin parce que ay ay junni nit ñoom ñoo jege si région et donc di ñëw ak dans la sous-région et par conséquent l' état état bi dafa war a jël bépp jumtuwaay ak bépp mesure boo xamante ne dina tax événement bi ñu mën ko organiser si anam yi mu waree ba ku nekk delluwaat sa kër ba du am benn incident donc bi loolu amee nag chef de service ñoom ñëpp teew nañu kenn desul. donc ku si nekk également kuréel bi wax na li muy xaar si yow man aussi ku nekk chef de service bu nekk saa yu saa ñu waxee li ñuy xaar si yow jox naa la parole nga jël engagement yi nga xamante ne moom jël et dans la ensemble engagement yëpp dal na suñu xel d' après li wax et man personnellement dinaa ko suivre wax naa préfet ak sous préfet donc pour ñoom ñu assurer suivi bi sur le terrain pour euh, chef de service yëpp. ñu mën a respecter engagement yi nga xamante ñoom jël nañ ko également wax naa leen bépp difficulté buñ si am ñu yëgal ko gouverneur comme ça ñun ñu mën a prendre les mesures donc en vue de pour pour ñëpp mën a respecter seen engagement maintenant bëri na si nag li si ëpp nag dinañ ko régler fii au niveau régional parce que am nañ ko mais yi nga xamante ni yàlla def na amuñu ko si région bi dinañ ko yeggalee échelon bi nga xamante moom mooy supérieur mooy ministre yi yeneen service euh, centraux yi nga xamante ne donc ñoom ñoo yëngatu ci wàllu accompagnement de l'État dans le cadre de l'organisation des cérémonies religieuses donc loolu laa amoon loo xamante ne bëgg naa ko ci wax waaw